Aliou ça va yaa ngi si jàmm naka tey ça va waaw booy bi booy bi yor toog nii yor sabar bi moom rey booy bi waaw booy bi ñu rey moom yaakaar naa croix croix nañ ko di ko gis booy bi ka rey nag mooy booy bi toog nii uuf sabar bi moom moo ko rey ñoom ñaar ñoo doon ànd foofu. ñu jotee ci problème boobu femme bi di expliquer nii asalaamaaleykum pour ree or anything this is a story that happened yesterday at Josuwang am two friends ay sénégalais lañ dañ amoon problème ñoo bokk a dëkka néeg bu gaay nekk ñoo fa bokk a stay they have an issue for three days back léegi after three days boobu no new mer new separate ku nekk dem sayon. Then den keneen dem mu traité keneen ki ne ko dinaa la and seen problem bi is about matla matla apples. so like bu mu ko traité mu mer mu génn mu dem mu xaar three days after mu ñëw secure. that was yesterday at Joshua around four si bëccëg mu ñëw fekk booy bi di nelaw mu jëm ko paaka jëm ko paaka ba pare sooti néeg bi essence wekki seen flat screen bi kila bi de wekki flat screen bi yóbbu flat screen bi ba pare taal néeg bi tëj xale bu góor bi si biti soo kii dafa daw dinaa def fi picture am anybody ku gis kii anywhere please ba dégg bi am da nga daan daal siis loo ñu ci mën a taxaw rek ñu sa teraanga ci dara ndax bo xolé secteur bi yag ngeen fay def ndam moy ce secteur papa ngay ne ku bax di nit ku ma ñame nak ma ñame la lol barke sayidina mohammed fa sama wala ma am njàqare dawut ci la nga fajal mako xale bi ci man la nekkon yaay munul daara yalla xam ko di néew di doole am gañu man la xamone ci man la nekkon te man ma ngi febar ya ma doon taxaw bëgg na da lo ma mën taxaw rek nga taxaw ma lii laay barke sayidina mohammed ndax teraanga ci yow la fekk bax ne ko bax nga lol dal mi ngi nonu ma nga lay jégalu bu baaxa baax nak mi ni fi la bi sama xarit bi mu ndaw bi so fila la jël xale bi mu rey ko ba pare mu jam mu a ah, tala mo jël Malik jam ko ba pare rey ko taal kër bi yëpp nag taal néeg yi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp nu yëpp yëpp waaw soo nii la fa demee woon gis ngeen nii la fa demee néeg buñ ko rey foofu lañ nekk nii na ko ko waaw fii la tëddoon yaa mu ngi nii rey talaa talaa talaa rey Malick jam ko ba pare taal kër bi yëpp xoolal layta bu teg layta bi. ana fu mu teg layta bi. waaw baa ngi bi la jël taal essence tuur layta bi jël tuur jël naka tuur essence jël layta bi taal jam ko rey ko. Mhm. waaw la fa demee. Mhm. gannaaw bi moo nekk nii. Mhm. waaw beneen seconde cabinet bi mu ngi nii. Mm, eh, beneen néeg baa nekk nii waaw loolu la def def lu ñaaw bi mm-hmm. def lu ñaaw bi saal bee nekk nii silin yaa ngi nii dafa reerut nag ma ne ko dafa reerut